Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce 25 juillet 2024 suñ Djogé foofu dañuy dem seeti ki nga xamante ni ancien DG de la LONASE nekkoon ministre des sports du régime Macky Sall de Lat Diop ginnaaw bërki démb bi ko auditionné fofu chez section de recherche bu Kër Massar ci benn vidéo bo xamanteni bu doon accusé ki di Lat Diop dafa daldi am lu toll ci 1 milliard bëggon ko dénk benn way bu tuddu Ibou Dieng ginnaaw lool nak ki di Ibou Fall nek chroniqueur fofu ci i radio bu mu jàkkaarloog Boubacar Diallo indi na intervention jëmale ko dal ci nga xamanteni moy accusation bi ñu jëmle woon ci ndoddu ki nga xamanteni moy mooy Lat Diop nañ déglu ci Ibou Fall dellu si waat. Moubs yow comme da nga bari affaire yow mës nga gis milliard. milliard bu dajalo ni non mosu mosuma ko gis nak milliard bu dajalo ni mosuma ko gis franchement. mais moi ce qui m'étonne parce que milliard c'est 1000 millions. Mhm. hein mhm. mu xaj ci malet ni <laughs> non je sais pas hein. man mosuma gis milliard. Euh, mais un milliard ni ci ben ah ça c'est curieux <laughs> non du caaxaan mais man milliard ci ben mallette un dollars là, ou je sais pas moi <laughs> C'est Fabi ni. Et eh vous? Oh. Sommes xarit hmm? auditeur là. Eh? un ancien chef de caisse à la BCCI dit qu'un milliard en nos équivaut à une tonne. <laughs> un milliard en nos billets équivaut à une tonne. Une tonne. une tonne ma ko ko téye moom. 100 kilos sax une tonne. un milliard en nos billets de banque CFA équivaut à une tonne. Les guillemets nga yore ko ni di di di di dox. Ah. <laughs> tamit di fu nit di Oh, dans cette affaire, la première chose que je me suis demandé, c'est est-ce qu'un milliard tient dans une mallette Non, mais Ibu, xam nga ñun suñu suñu suñu nous, mi ni ñu toll suñu réew mi <laughs> des fois suñu su si dafa dafa am ñoo xam ne ñoom waxal ñu communication boobu noonu. moi je sais pas. Ça, comment ça m'a tellement semblé semblé comment Aujourd'hui, tu as vu beaucoup de vidéos où on dit ici c'est chez tel. Mm -hmm. Terrain jambour yoo xam dañ ko clôturer nga gis ay vidéos ñu def ay terrain terrain yi terrain wu diw la terrain bi terrain wu diw terrain bi terrain wu diw la def ko ci vidéo tudd turam def ci photoom ba pare ne ko génneel suñu xaalis ne kër gi kër diw la oto bi auto diw mais comment on est arrivé à ce que chacun d'entre nous a envie de tuer l'autre non non ça tu c'est on a cultivé la haine ça depuis longtemps non mais Ibou li li li li non non non non même bi téléphone amee léegi. buuf c'est c'est loolu Ibou loolu ci 3 ans yi wala 2 ans yi la am. waaw mais buuf pour euh, les gens qui jonglent avec les milliards ce n'est pas des gens de la préhistoire Car ils dire pas opération bancaire transfert mais que tu te réveilles un beau jour parce que nous, on milliard dafa à partir de 2000 la commencé Tu mhm, mhm. ngay gis koo 100 000 francs pour toi, di xuloo ay milliards tu ne sais pas ce que. Non, mais je te jure. <laughs> non. Mais, mais Mais ma première question, c'est est-ce qu'un milliard tient dans une mallette euh, non, Parce que si vous c'est Fabi, il y a 10 000 francs, c'est pas des. Il y comment quelqu'un peut chercher à nuire, à ternir ah l'image de quelqu'un à, à, ce point Non, non, mais ça, ça c'est. Chercher à nuire, non, non, ça, ternir, non, non, ça, Ray, haram hmm. Non, c'est devenu notre culture, ça. Mon... Mais c'est une culture bonne. Non, non, non, c'est que c'est devenu un fond de commerce. Mais il vous, une, société qu'on Il y a une expression, niaou. Niaou, faut Mais il vous, comme nous, comme nous, nous, nous, ba kanji eh. nit bu toroxee dañuy kontaan. ah am na de. ah loolu moo nekk si loolu la nekk di dund nii de. xool Lat Diop ne fexe mu torox yàq deram. ñu dalal seen xel di leen wax ni waa ji ñu wax ni dañ koo garder à vue Kër Massar ci coowal supposé milliard bu ma déggoon nit di leen xamal ni maa ngi nii sama kër ak sama biir njaboot nekk ci jàmm waaye leen xamal ni sos yu mel nii dugg leen sos nañ fi ne dama doon tukki. ñu nangu sama passeport fekk money, maa ngi ak sama njaboot di reer ñu woo ma wax ma sos nañ fi ni damaa lekk budget ministère sport ci ñetti weer tey ñu sos ni dafa am ku ma doon dénk un milliard ma di xamal ni sos yooyu yëpp nag am na yeneen yu ñëw ngeen préparé wu si xam ni am na yeneen yu ñëw waaye ak lu mën a xew na ngeen xam ni ñun ay gor lañ ay gor judd fi ñu war te duñ daw lu ñëw dinañ ko dégg te di xamal ñépp ni man fonctionnaire la administrateur civil la de classe exceptionnelle liggéey ngir réew mi kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo analise bi nga xamante ni Ibou Fall def na ko li mu njëkk laaj buub sa ndax mës nga gis milliard buub sa nag li mu liggéey ci Sénégal yëpp dugg ko fu nekk moo mësul gis milliard kon du Ibou Dieng mooy gis milliard kon Ibou Fall li ko jaaxal mooy milliard c'est mille millions un million ba muy mille xam ngeen ñaata la ah un million mooy mille dix mille mille dix mille ñaata cent mill ñaata mill francs la kon yaakaar naa ne un million cent et un milliard cent à une tonne kan moo mën a doxantoo vingt saako ciment vingt saako ciment yu cinquante kilos nga def ko ci benn mallette donc pour wax la ni que sénégalais yi parfois duñu xalaat sa Ibou Dieng la bi wax ñi jël ko ci réseaux sociaux la première des choses lan la ñu waroon xalaat lan mooy milliard est ce que milliard mën na nekk nii est ce que milliard musul nekk nii yàq der bi nag la ñu war a bàyyi mais comme dañu jàkkaarloog peuple boo xamante ni ñoom xam nañu ay naxasaala lañu et je crois que ñi ñu doon waxal mooy ñi nga xamante ni mën nañ leen jàppee ay bàyyi ma ñooñu ñoo doon agité wu ci réseaux sociaux yi muy ki nga xamanteni moy Ibrahima dien ginnaw diffamateur la bi mu defoon condamné ki nga xamanteni pour détournement fofu ca Guédiawaye football club ki nga xamante dañ ko japp condamné ko ci détournement bi mu def ci club football koku tay su waxé ay wax est-ce ko waxam jarna dor dom depuis loolu la am ben dent contre ki nga xamante moy Lat job jóg uniquement ci ben vidéo mom mi nga xamante dañ ko condamné 6 mois de prison ferme ak amende cent quatre millions yo xamante daf ko dor ci ben jour bu mu jaay koku def ben vidéo ne Lat Diop woowoon na ma pour di denk maletu 1 milliard 1 milliard dafa xat ci malet

des ignorants des analphabètes nekk di wax muy analyse bu am solo bo xamanteni ki di Ibou Fall def nako et je crois que koko bu muy wax du ñun la doon xal du Ibou Fall la doon xal mais dafa xamni tay dañu am benn majorité bo xamanteni ay ignorants lañu ignorants yooyu nak ñom ñoo wara yewu xamne xam ne buñ nangu nit di len jappé xar wala bayima en tout cas muy ay éclaircissement yo xamanteni indi won nako ci réaction Ibou Fall ci accusation yi nga xamanteni Ibou Dieng defon nako ci kaw Lat Diop ginnaaw bi ko auditionné ñibbi na këram. <laughs>